seen loxo dafa set sell ñu ci bëri téye seen loxo ci politique bi bu ko defee bàyyi fi jasit yooyu ñu xëccoo li fi nekk moo tax suñu parti bii di cofeel man ak samay naataango dañoo daje woon ci waxtaan ne lan lañ mën a indil suñu réew en tant que ay ndaw ñu ne ah jot na nag ñu bokk ci développement réew mi bañ a nekkati dong ay seetaankat wante nekkati de vrais acteurs foofu la ñu décidé créer parti bii nga xam ne moo ngi tudd cofeel turu cofeel bi lu ko indi mooy rëkk-rëkk yi nga xam ne am na ci langue politique bi ñàkk dëppoo lool ak suñu ngëm-ngëm fii nga xam ne réewu senegal nga xam ne ay valeur ñoo ko sanc bañ ci waxtaanee ba juboo ñu gis rëkk-rëkk yu bari yooyu ñu ne nag jot nañu jël loo xam ne day nekk suñu taxawaay wante day fekk loo xam ne day ànd ak sénégalais yépp loolu moo di baatu cofeel parti bi ba nga ko créé léegi euh, am na ñett at est que jot nga sa récépissé ñoo ngi koy xaar ba léegi te boo ñu ci mayee ñu wax ko dinañ taxaw fii tey ci biir Walfadjri tàllalaat suñu loxo ñi nga xam ne tey ñooy autorité réew mi wax leen ay ndaw lañu te ci réew mi lañ bokk li ñu warul woon yépp ak li yoon wax pour déposer récépissé ñu def ko dippay at ñoo ngi toog di xaar jot na tamit ñi nga xam ne ñoo ŋànk réew mi def seen devoir def seen wareef delloo ñu suñuy droit ñun ndaw yi nga xam ne taxawal nañ suñu parti politique pour ñu jot suñu récépissé. Mm-hmm. retard boobu nag ban explication lañ leen jox. amuñu ci benn explication wante ñun ci suñu biir xam nañ li tubaab di tuddee lenteur administrative te Sénégal da koy dund mu bokk ci yenn yi nga xam ne mooy suñuy priorité heure bu ñu yàlla tegee ci bopp réew mi ce qu'on la lenteur administrative maanaam yeexaayu li xew ci administration bi sénégalais yëpp a ngi koy dund jaaxaluñu nag. ndaxte wut carte d'identité sax fitna la ci réew mi sàkkamtuma ak wut kayitu juddu donc lu toll ni récépissé li bett ñu woon wante tey lañ gën a taxaw tey lañ gën a pare te tey lañ gën a nekk ci liggéey bi ñu war pour ñu jot suñu récépissé. Sénégal li fi nekk ci ay parti politique euh, mat na daanaka ñett téeméer. Mhm. waaw loolu nga ñëwaat ba créé waat beneen parti est-ce que jaxasoo pëcc boobu du gën a tar rek. ñu xamal askan bi ne ko 17 millions de sénégalais mënoon na am 17 millions de partis politiques benn yoon. nombre de parti politiques dafa war a am ci réew te loolu day wone que ne sénégalais yi seen réew soxal na leen ñu ñàkk ànd nag ñu ñàkk ànd wante mën a toog waxtaan njëriñu réew mi la parti yu bari yooyu nekkul loo xam ne gaañ la ci askan wi nañuy doxalee politique moo nekk ngaañ ci askan wi. waaw mais justement est-ce que du defuñu politique rek benn raccourci pour rek mën a dem si euh, pré-bande yi ah waaw euh, pouvoir bi lekk ci xaalis bi waaw xam nga pouvoir ñi ko jëlee lekk xaalis mooy que ne tooñ nañ seen bopp hmm. pouvoir du lekk xaalis pouvoir mooy ki nga xam ne da ngay liggéey maanaam mooy ki servir njiit li ci sëriñ bi jàngale doy na sëkk xam nga mooy lan hmm. mooy yow mi nga xam ne bu ñu doon séddoo yaa war a ñàkk te yaa war a ñilif ñëpp pour ñëpp am loolu mooy njiit kon ku yaakaar ne bokk ci nguur wala def politique c'est pour séddoo xaalis bi war nga sa bopp te war nga askan bi loolu la cofeel bëgg a indi loolu la cofeel bëgg a dindi loolu moo tax ay ndaw yu mel ne man am liggéey ba pare nekk di liggéey tamit ñëw ne dañuy indi mbir neew ma ñuy politique liggéeyuñu dama ne ñun dañoo gëm ne politique dafa bokk ci jaamu yàlla te réew mii réew ñu gëm yàlla la dafa jot ñooñu seen loxo set ñu yore réew mi waxuma nag ñi yor réew mi seen loxo setul dama bëgg ñu xam ne réew mu nekk dafa am ay génération Sénégal tey fii mu toll nee nañ jeunes yi ñooy majorité bi kon jot na nag jeunes yooyu bokk ci doxalinu réew mi te niñ ci war a bokkee mooy ñu indi ay vision ay gis-gis yoo xam ne dafay mën a ànd ànd ak li nga xam ne moo santi réew mi mooy valeur yi nga xam ne moo tax tey ñu ne Sénégal bu tuddee ko réewu teraanga mënuñoo politique te boolewuñ ko ci te buñ ci boolee valeur yooyu li nga wax léegi ci politique bi waru cee mën a amati loolu mooy baatu cofeel loolu mooy suñu vision tey. léegi sa parti bi ci ban boor lañ ko mën a situer est-ce que da ngaa bokk ci euh, kuréel bi nekk ci nguur gi di mouvance présidentielle wala bokk opposition nga nekk wala da nga tracer sa bopp beneen voie tuddee ko troisième voie comme ñeneen ñi ni ñu koy waxee. bu fekkee ñeneen ñi ñoo ngi wax troisième voie kon ñun fi ñu bokk mooy ci askan wi xam nga dafa am lu may faral di wax mooy maanaam ñiy politique ak askan bi dafa mel ne ñaari réew yu bokkul la loolu la cofeel di bañ cofeel ci askan wi la bokk cofeel askan bi mooy seetoom askan wi la àndal ndaxte ñoo bokk li ñuy dund. ñëpp loolu la wax. ñëpp loolu la ñuy wax yooyu ñuy doon wax sànq. ndax ku si nekk lay wax. ndax jëfin bi benn mooy parti askan wi. ndax jëfin bi benn la cofeel nekkagul parti askan bi dañoo bëgg mu nekk parti askan wi. Mhm. parce que suñu vision askan bi yëpp tollaguñ ci. dañoo bëgg a wax sénégalais bu nekk fi mu nekk ne ko leader nga. ñu jox la li ñuy tuddee prise de conscience ci tubaab mooy nga yëg exactement que ne réew mi buñ ko doon séddale ci xolitu gerte sénégalais bu nekk am na droit laaj loxoom tàllal loxoom laaj. pour ñu xam ne réew mi pour ñu defar ko du état du opposition c'est pas uniquement nekkul dong ñuy politique ñooy defar réew mi politique ci tubaab gestion de la cité la bu fekkee tey nag ñeneen dañ ko tuddee neneen loolu sañ nañ leen ko bàyyee ndaxte ay mag fa ñuy nekkee di waxtaan wala di fecc wala di lijjante la nga xam ne ñoom la na ñun ñii duñ fa dugg ñun li ñu saxal mooy na askan bi fitna gii muy dund chaque jour ñu fexe ba xool nuñ ko wàññee loolu moo tax cofeel defal programme am ñëw tey di ko jéem a partager ak sénégalais ba invitation bii mu am. ba nga duggee ci langue politique bi ba léegi certainement def nga ay tournée dem nga seeti askan wi ba nga demee sur le terrain lan nga gis ci nu sénégalais yi. li ñu jot a def yëpp dañoo dem déglu ji bi ñu demee dañoo dem déglu ji askan wi dem nañ ci borom daara yi déglu leen dem nañ ci borom jakarta yi déglu leen dem nañ ci maire mbootaay yi déglu leen dem nañ ci baykat yi. ci xale yi jël gaal yi sama moroom yi jël gaal yi dem nañ déglu leen ñi nga xam ne tey sport la ñu yaakaar ne mooy seen avenir dem nañ déglu leen dem nañ sax déglu ñuy def politique li ñu gis ci réew mi mooy li ñuy dund chaque jour mooy inondation ren de kenn du ci wax ndaxte ndoxu daaw ak daaw jéeg moo ngi fi ba tey naqar yi ñuy dund ci ñàkk a faju ci ñàkk lekk ci ñàkk formation ci ñàkk am liggéey tey jii dafa mel ne bés bu nekk day gën a jëm kaw loolu la ñu bokk di ko dund ak askan wi rawatina nag politique yooyu ñu yaakaaroon na ñoo ñu koy dindil ci jamono ji ñu wees lu mat ñaar ba ñetti at ñu yokk ñu fitna fitna ci wax fitna ci jëf askan bi sonn nañu moo tax ma ne la ci askan wi lañ bokk ni ñu bokkee ci askan bi mooy li ñuy dund la ñuy dund te dañoo jàpp ne ñi amoon yëg-yëg tey pour teggi leen coono yooyu ñoo koy gën a yokk ci gannaaw coono yi ma fi wax yépp bañ ko bàyyee ba pare dolliwaat fitna ci réew mi askanu Sénégal mérité wul loolu. ci sa vision da nga ne da nga am yéene delloo si lom nit au cœur des politiques citoyennes développement et tout mais loolu mën nañ ne du lu bees ndaxte plan Sénégal émergent bi nga xam ni ñu ngi koy dérouler depuis 2014 dañu ne ñoom le capital humain la ñu bëgg mu nekk au cœur de tout développement léegi lan mooy sa différence ak plan Sénégal émergent maa ngi leen ciy remercier di leen féliciter bu baax ci loolu ñu def parce que lu baax la nañ ko defee nag amoon na defin bu ko gën loolu la cofeel indi te programme bi bu ñu ko temps mayee mën nañoo wax ci côté bu nekk ñoom la dee la déjà ñu xalaat ko ba teg ko lu baax la wante doxalin bi am na lu ko gën damay jël benn secteur bi nga xam ne tudd nañ ko léegi ci wàllu tubaab bi muy le secteur informel muy góorgóorlu yi nekk Sénégal te nga xam ne ñooñu tey biir bu feet Sénégal bëri na ñoo ko feesal te ñoom lañ njëkk a fàtte cofeel bu yoroon réew mi ñooñu lay def priorité foofu la réeroo bi wala foofu la ñàkk ànd bi amee ak li fi nekk tey wante lu baax la dafa am lu ko gën te moom la cofeel yaakaar moom la war a indi. yow am nga alternative crédible si plan Sénégal émergent. bien sûr. Mhm. am nañu ko. mooy suñu programme bi ñu tuddee OR. OR nekk. loo xam ne ñëpp a ko bëgg wala boog rawatina suñu mbokk jigéen yi wante pour ñun or boobu nga xam ne ressource naturelle la te nga xam ne ci Afrique or boobu jur na fi fitna gu bari te ñun Sénégal ñu am ci moom la ñu wax ne or boobu mooy suñu couleur drapeau benn ñaareel bi nekk lettre O bi ñu ne dañuy organiser waat lettre R bi ñu ne dañuy réformer waat ci réew mii dañoo def dañoo war a def plutôt li baax ñu gën ko baaxal mooy ñu organiser ko li baaxul nag. ñoom yëg-yëgu am ngoru réformer ko mais ku wax réforme def ko ci xam-xam te def ko ci yar loolu lañ bëgg a def. Hmm. nga bëgg organiser sa organiser waat réew mi réformer waat ko. effectivement Senghor mi ngi doon wax organisation et méthode. nous on est plutôt sur organisa organisation et réforme organisation et méthode jàll nañ ko dem nañ jàngi ñun ñëpp réew mi bu fekkoon kuy dund dañoo ne jot na majorité jot na fi nga xam ne majeur na kon méthode am nañ ko dem nañ jàngi tey jii li ñu war a def mooy ñu organiser ak ñu réformer mooy le fameux programme de cofeel bi ñu tuddee or jot na réew mi ñu organiser ko li baax li nga xam ne ñun ñëpp gis nañu ne gàllankoor la ñu réformer ko ci xam-xam ak ci yar. ñu jël ci wàllum xëyu ndaw yi. Euh, ak actualité bi nga xam ni mooy émigration clandestine bi xale yi di jël gaal di bëgg dem bitim réew ñu si bëri di si ñàkk seen bakkan yow euh, ban proposition ngay def pour xale yi mën a toog fii Sénégal tedd fii am fi liggéey. waaw xam nga xale yi pour ñu toog fi tedd fi am fi liggéey faw ñu wax leen li nga xam ne moom la mag ñi di wax. booli kese naxuli bëy naxuli xar kon waxu kese du téye jeunes yi xam nga dafa neexul ci xol. péage bii nga tudd léegi infrastructure yi nga tudd léegi ñu koy romb di gis rek bu ñu demee fekk fa vigile boo xam dañuy naan doo leen fa dugg doo leen ko lal dafa neexul moo tax waxuma leen na ñu jël gaal gi dem solution la wante mën nañoo comprendre mer bi nekk ci ñoom ba ñu def loolu ndaxte la sénégalais dañ ko mus a xam ci jënn dem wuti jàmbaarte googu dafa bokk ci suñu deret ba mu jaraleen léeg-léeg seen bakkan wante dama leen di wax ma ne leen ndaw moo leen koy wax te li ngeen di dund la ñuy dund man ak yéen ñoo tolloo ay at tanewuñu leen dañuy yëg coupure courant bi dañuy feebar duñu am lu ñu fajoo bu ñuy dawal oto dañuy wàcce suñuy vitre péage bi dañuy ñàkk luñ ko fay dañuy jël kaar rapide ba tey kon yëg nañ li ngeen di dund ñooy ànd ci daayira yi ñun ak yéen ñooy defandoo lépp parce que ay jeunes lañu réew mi buñ ko bëggee defar ñun jeunes yooyu faw ñu toog ci réew mi defar ko ndaxte jënn jël sa xam-xam ak sa doole defari beneen réew taxul suñu réew baax am na ci nag ci domaine bu nekk ay plan yoo xam ne cofeel xalaat na ko ci wàllu programme ci wàllu gis-gis pour defar réew mi. bu doon plan mooy développer réew kon Sénégal dépassé wul fii nga moo tax suñu programme jërëjëf bi nga ko waxee dañuy faral di wax ne binduñu ay di livre wala ay dictionnaire ponk boo jël ci réew mi ñun ci ay tomb lañu koy defee. ci lii nga wax tey ci wàllu sécurité wala ci plan informel bii nga wax ci secteur informel bi boo ñu jëloon secteur informel wala nga jël ci wàllu sécurité dañ lay naan ku ñu dénkoon réew mi ci fukk tomb ak ñaar wala ci juróom-ñaari tomb selon secteur bi mu nekk ñu defar réew mi lu yomb la lu mën a nekk la muy ci wàllu santé bi muy ci wàllu jàng bi muy ci wàllu coopération internationale muy ci wàllu sécurité foo ci jël jaratul bind ay livre man Sandiara laa dëkk maa ngi leen di char de passage bu may jógee Mbour wala may jógee Dakar di ñibbi sànjara ba romb bus yi ni ñu leen di tegalee ci tali bi parce que minuit jot na du toilette du lekk du tëddkaay du dara parce que mesure la boo xam ne état bi moo ko jël ci ñàkk xareñam pour ne noonu lay régler accident yi ñooñu ci mbedd mi la ñuy fanaan mag yu feebaroon war a dem hôpital mag ñu mënul téye seen bopp ci ay toilettes. xale yu xiif boo leen gisee da ngay toog nga yaakaar nga ne man mii nga xam ne tey maa yor réewu Sénégal di dawal ci sama oto climatisé vitre teintée aju ba mu tëj ci kaw est-ce que gis naa lii moo tax programme mu cofeel ak programme tey ñi fi nekk mënul doon benn dañoo yëkk ne askan bi dañoo sonn askan boobu lañ bëgg dimbali ci damm-damm yi ñuy dund chaque jour pour ñu teggin leen ko loolu mooy développement. waaw at bu jot euh, Sénégal lu toll si 300000 euh, ndaw. ñoom ñooy ñëw sur le marché de l'emploi te nee nañu li ci mën a jël matul 10 pour cent donc bu bëree ba bëri 30 30 000 la yem yow naka nga fas yéene def ba tendance boobu nga renverser ko. xam nga ci ñu liggéey ñun ci wàllu ressources humaines la ñu nekk kon wàllu liggéey xam nañ ci tuuti maanaam dañuy commencer ci formation bi xam nga ki yegsi ci marché de l'emploi dafa am lu mu ëndaale maanaam jàng na soog na pare yor na ay diplôme mais tey ce qu'on appelle l'enclos du monde du travail dafa amay liggéey yu bëri fii ak horizon 2030 amatul te formation yi ñoo ëpp Sénégal xale bi ko def jàng am ay diplôme tey ñoo ngi 2023 2030 métier boobu amatul donc ay métier la yoo xam ne ci suuf la ñu jëm te formation yi nga xam ne tey mooy indi métier yi war a jëm ci kaw Sénégal formation yi jublooguñ ci dama la ciy jox benn exemple bu ndaw li ñuy tuddee numérique aujourd'hui gis nañ ko ne formation tey boo ci mën a def am nga chance bu bëri même bu ñu la jëlul nga liggéeyal sa bopp te pourtant formation yooyu bëriwul ci réew mi ñoo ngi nekk ci sa ko appelle système classique mooy li fi amoon moo tax réew mi jot na organiser jot na réformer léegi nag pour li nga wax nii ci wàllu jeunes yi nan la ñuy def ba am liggéey ñi nga xam ne jàng nañ ba yor seeni diplôme état mënta jël ñëpp wante bu ñu tegoon ci bopp réew mi ñun ci suñu programme dinañ faciliter ba créer entrepreneuriat ak ay start loolu mooy lan loolu la ñuy organiser secteur informel bi sénégalais ay jàmbaar lañ macha allah dañoo bëgg juste ku leen tracel ay yoon yu ñu jaar nguur loolu mooy liggéeyam. bu ñu paree ci foofu ba ñu def secteur informel bi mu nekk premier employeur dans ce pays état bi day nekk deuxième employeur parce que fonction publique bi tey ci côté yu bëri am na carence humaine te pourtant état defagul les reforme qu'il faut ou bien l'organisation qu'il faut pour yéegal niveau boobu noonu bu ñu demee ci foofu secteur privé bi ñu ñett ñoon ñoo yor réew noonu lañ ko bëgg a organiser léegi nag ñu dooleel baykat yi sàmmkat yi nappkat yi ni leen di doolelee mooy état bi am ñoo xam ne dañoo jàng loolu ñu wàcce leen sur le terrain pour ñu accompagner ñuy liggéey loolu buñ ko defoon réew mi mën na naat ci naat boo xam ne dina gaaw loolu. waaw baykat bu yooyu ngay wax si campagne agricole bi rek gouvernement bi dugal na si cent milliards. problème bi di dugal cent ah. milliards Edouard. problème bi mais le résultat yàlla nga ma fi invité waat bés ñu wax ci résultat bi nañu jël ci inondation yi nga xam ne chaque jour ñu dugal ci ay milliards te chaque jour mu gën a metti est-ce que nit ñi waruñoo yeewu Pierre du dugal ay milliards terme milliard fii ci réew mi nit ñi war nañoo xool bu baax ni ñu koy waxee. en tout cas c'est l'unité de mesure euh, au Sénégal depuis quelques années milliards milliards. Mm, xam nga cofe lan la bëgg. Mm. du ay milliards mooy defar réew mi. milliare yi dafa bokk ci liy defar réew mi wante du moo koy defar boo jëlee ay milliards jox ko ñoo xam ne jox ko koo xam ne ñu def ko foo xam ne ak defin boo xam ne àndut ak bëgg-bëgg réew mi nañu jël li ñuy tuddee fonds Covid li ci nekk xam nañ ci du milliard la ñu wax moom la ñu def ci wàllu bay bi man Sandiara laa jóge réewu baykat la falaa xëyee tey ci suba réewu baykat la nañu ànd ñu laaj waa Sandiara ndax milliards yooyu ndax suñu semence tardewul ndax suñu engrais tardé wul est-ce que tey ci biir milliards yooyu defal nañu des unités de conservation pour li ñu bay ñu am fu ñu ko denc mu bañ a yàqu est-ce que ubbil nañu ay marché yoo xam ne bu ñu bàyyee ba pare am na fu ñu ko jaayee c'est-à-dire fi ñu war a dellu foofu lañu delluwul xam nga fan lañu war a dellu kuy defar da ngay defar ci baas ba fi mu njëkkee te loolu du ay milliards moo koy def baykat bi nga yëkkati jox ko tey mu bay gerte man mi dëkk Sandiara xam naa ne suñu suuf si ni mu naatee woon ak problème environnementaux yi am suuf si demeetul noonu taw bi demeetul noonu jaay gerte bi demeetul noonu nga ñëw yëkkatiwaat xaalis jox ko xaalis boo xam ne bi nga ko koy lebal taux d'intérêt bi bëri na te déwén mu xaaraat la même chose te loolu muy bay investissement bi mu ci def moom wóor na ko du ko ci am te ci la war a dundal njabootam fitna nga ko gën a yokk problème bi du ay milliards. à propos de milliards budget Sénégal 2024 bi ñu ko estimé à 7000 milliards mu nekk euh, gulet ci Sénégal loolu lan lay signifier que réew mi ni ñu ko yoree quand même yorin bu mucc ayib la. ñu yor réew mi bi ñu góorgóorloo ba budget bi mu jëm kaw dañoo jaar ñun leen félicitation kon dañ leen koy wax parce que budget bu ñu fekkoon ay 1500 yóbbu ko 7000 milliards jar na ñu wax leen jaraw lak wante bi ma leen waxee jaraw lak foofu laa leen di joxoñee 7000 milliards yooyu ndax sénégalais yëg nañ ko wala ndax dañ koy gis ci télé bi man damaa bëgg budget bu rëy taxut ñu ne réew mi développé na. dañoo bëgg sénégalais ah, yëpp développement indicateur la quand même. les finances publiques sont assainies. c' est écou écou écoutez euh, Pierre je me permets ah. indicateurs nañ ci def ndànk ndax ñi koy defa tax xam nga bu ñu jëlee organisme mu àdduna bi ñi nga xam ne ñooy réew développé yi. Mhm. bëgg ñoo defal ñun Sénégal ay indicateurs ñun ñu sukkandiku ci léegi léeg day indi naxe mbaay jot na réew mi ñu defal suñu bopp ay indicateur indicateur ci ñett la commencé ndax développement foofu la nekk xam nga mooy lan bëgg faju faju war a jàng war ñu former la nga def ko bëgg a lekk-lekk ñett yooyu bu amul ci réew indicateur boo ma jox mën naa la ko nangul mais gëmuma ko te réew mi bu ma ko yoree loolu lañ fi njëkk a dindi. Mhm. alors réew mi boo ko yoree ñu ngi jëm ci ay élections euh, fii juróom-benn weer est-ce que li ñu fi wax ni yëpp tey euh, discours de campagne la est que yow yaa ngi si yoonu nekk candidat ci élection 2024 yi. Euh, loo xam ne tey suñu formation politique bëgg na ko wante nekkagul yéene bi nag am na ñi tax ñu yegg si fii tey chaque jour moom la ñuy wax. wante nekkagul pour nekk candidat ndaxte tamit euh, damay gis que ne politique bi moom léegi-léegi jóg rek ne candidat laa dafa xaw a yomb lool. waaw ah, yomb na de. waaw man nag sañu ma ko. ñii tëb rek ne candidat. candidat waaw man nag sañu ma ko. te bu cëppaandaw la jotee kenn du leen gis. tàggoogu ma la ñu war a am lépp matagul pour ñu doon ko mais nag yéene bi am na fi te incha allahu rabbi bu fekkee yàlla defal nañu ko ñu mën ko ñu am ko. ànd ak ñi ci war a àndal leen doon candidat mais pour le moment nekkagul. si nan nga si fas yéene dem bu fekkee nekk nga ko est-ce que sa parti rek ngay contenté woo contenté woo wala boog da dem ci coalition parce que Sénégal dañu naan kenn mënatu fee gagner élection sans coalition. Euh, Sénégal li ñu fiy wax yëpp bëri na wante li tubaab di wax du argent du xaalis du lu comptant coalition yooyu duñ ko bañ ndaxte fii lañ ko fekk doxalinu coalition yi moom la ñu àndul te duñ ci bokk ci yenn doxalin bu fekkee dañuy coaliser juste pour am poste baax na am nañu liggéey ba pare dañoo bëgg ay coalition yoo xam ne dafay ànd ci ay valeur xam nga waroo bi am ci politique bi tey coalition yi dafa yokk lu ko indi hmm. ci naka dañuy jël les coalitions les plus euh, ñu wax ko ci baatu wolof coalition yi gën a xam Sénégal xoolal mbëkkante bi nekk seen biir bu élection jubee loolu moo gën a tàdd réew mi ndaxte ku boole xar ak nag ci benn enclos léeg-léeg da indi problème c'est-à-dire vision yi xalaat yi gis-gis yi bu ñu àndul pour defar réew mi ngeen bëgg a ànd rek juste pour am poste nangam loolu mooy indi coono bi nga xam ne ñun askan bi ñu ngi koy dund te xamuñu lu ko waral une coalition doit se faire sur la concordance sur la conjugaison des visions li tubaab di tuddee wax li olof di wax bokk ay gis-gis yoo xam ne dafa war a ànd ak méngoog doxalin bi nga xam ne moom la ñuy teg loolu moo waral coalition. kon yow pare nga pour dem coalition mais pas à n'importe quel prix. pare nañ pour dem coalition parce que lépp lu bokk ci askan bi dañ cee bokk. pare nañ pour dem coalition wante pas coalition yi ñu fi gis. pas doxalin bii ñu fi gis. bu fekkee doxalin bii rek moo fi des wala moo fi ëpp cofeel buy dem élection incha allahu bi boppam lay demal. lu ko ci yàlla jox. lu ko ci askanu Sénégal jox mu xam ne lii la ci jox continuer waat liggéey bi nga xam ne moo ngi koy def ci wàllu terrain bi. mais justement est que déjà am nga ancrage boobu tey ba war a mën a am ambition dem yow rek. ci élection amuñu ko ah? waaw Sénégal tey bariwul ñoo fi naan koo fi tudd Chérif Mahfouz Diop ba mu ne xam naa ko. suñu waa kër sax am na ñu ko xamul. Mhm. pour ñu wax dëgg. waaw suñu waa kër sax am na ñu ko xamul. Mhm. donc loolu moo tax ma ne la sama ngor. sama yëg-yëg mayuma ma xëy jàkkaarloog yow ak 17 millions de sénégalais di leen candidat laat mhm. yéene la bëgg-bëgg la bu nga xam ne li mu war yëpp bu laajee pour ñu doon ko incha allahu rabbi dinañ ko doon bu ko doonul ñu toog xaar beneen yoon. ñu jeexalee ak benn question d'actualité mooy Niger ak CEDEAO ñu naan dañuy def intervention militaire ñi naan déet yow tey lan moo si sa position en tant que acteur politique. xam nga Niger pays africain la boo xam ne coup d'état dafa am CEDEAO nekk organisme africain boo xam ne ay africain ñoo ko jiite. ñoo ko doon e li tubaab di tuddee dans l'organisation de la CEDEAO il y a ce qu'on appelle une organisation militaire maanaam ci ànd boobu tamit ànd militaire daf ca am loolu faaw askan bi xam ko ba pare jublu ànd militaire boobu mooy que ne bu fekkee waxtaan indiwul solution mm-hmm. ñu xam ne doole moo war a indi solution doole boobu bu ñu xaarati suñuy naataangoo tubaab yi ñëw defal ñu ko africains yi jóg lijjanti problème africains yi loolu moo waral force CEDEAO faaw nit ko ba pour ñu mën a dem nag léegi ci décision bi bu fekkee CEDEAO tey jóg na pour dem Niger ci ay soldats africains sous la tutelle sous la gouvernance africaine de la CEDEAO d'accord naa ci wante bu ñu njëkkee Niger donc Mali def na coup d'état Burkina Faso def na coup d'état li tax ñu war a seppi Niger donc njëkkee fa xaw na ma jaaxal bëggoon naa ñu wax. ma def nañ coup d'état ah. ma ne Guinée defoon nañ coup d'état te demuñu fa te pourtant Gambie gi bi ñu ko defee dem nañu fa. Mm-hmm. donc faaw aussi tamit CEDEAO suñu njiit bi suñu njiit yi ñu xaw logique parce que ñun tamit ñoo ngi xool li xew ci àdduna bi te géopolitique maanaam àdduna bi tey ni politique di doxee dafa am lu bëri loo xam ne xel moo koy def mm-hmm. xëy xëy dem Niger kenn du ne baaxul man de du ma wax baaxul man xam nga lan moo tax. bu ñu ko deful peut-être suñuy naataangoor tubaab ñoo koy def te pour ñu amaat suñu indépendant sécurité faaw ko ñun africains yi ñu jóg pour régler suñuy problème bopp wante bala ñu koy def na fekk ñu ne waxtaan de amatul benn solution na fekk ñu ne de tànn ñu réew moomu rek parce que nangam ndaxte am na ñu ko njëkk def coup d'état ba pare te kuy dem di àqi kuy dem di wàll kuy dem di delloowaat yoon na njëkkee ci réew yooyu ba pare mm-hmm. loolu mooy suñu vision ci gis-gis